jërë ngeen jëf euh, amis téléspectateurs people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di leen ndokkeel ci weer wi ñu génn muy weeru gàmm di ñaan fépp fu ko waaye gàmmoo rek yàlla ko suñu borom fël euh, ful ko mu doon ay ngëneel wasaare ko fii ci Sénégal te nag ñu ñëw seet si suñu kilifa suñu xarit euh, comme ni ngeen ko baaxoo gisee rek muy Ahmed Cissé fa seenee waxtaan ak moom ci actualité fa seenee waxtaan ak moom ci xam-xam Cheikh bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre fii ci maa ngi leen di fay di am mbégte ñëwaat fii pour la deuxième fois waaye suñ ko boolee yëpp mu nekk troisième fois tribunal bi fii benn yoon ak beneen yoon. di am kontante ci site bu mag bile. nga xam ne actualité du ko raw. lépp ngir jaamu soxlaay askan wi nga xam ne ñoo ko yónni te yàkkamti ko. di ñaan jàmm yërmande barke ak xéwal yàlla tur ko ci ñun di ndokkale jullit yi ci gàmmo gi di waajal gàmmowaat. bu 2022 di wane ne buñ génnee ci gàmmu gi gën a bëgg yonantu yàlla nangul nañu buñ génnee ci moom roy ko yàlla nangul nañu man nag dama am benn stratégie ci gàmmo mooy at bu jot damay tànn benn jikko yonantu ne bii dina ko boole ci suma bopp. Mhm. bi ma ko tàmbalee ak léegi fukki gàmmo la ak ñaar te yonantu fukki benn jikko rek roy ko doy na texe. Mhm. rawatina fukki jikko ak ñett yoo xam ne da nga koy jéem a jàng ci moom donte ne doo mën a mëtal pour toujours waaye dina doon loo am yéeney roy ko ci moom. te roy roy lu mbir dina tax nga roy ko te ku roy mbir rek yaa nga ca loolu daal mooy njëriñu gàmmu am na ñuy wax ne bidaa la waaye seen gis-gis la ma nangul leen ko ndax àdduna kenn xamul dëgg. tey fi may njëkkee mooy. ci majeure partie ci sénégalais yi ñoom dañuy jaawale euh, jaawale wuñ sax wala seen xalaat la ñuy wax mooy Ahmed euh, sëriñ la wala imaam la wala lan la est-ce que mën nga mën nga ñëndil ay leeral ci loolu. waa xam nga lépp métier la rek. Hmm. mais dañu réeree ne doomi jullit dafa am lu ko war. am lu ko warut waaye Sénégal su ñàkk a xam moo tax ñun dañu jàpp ne yenn façon nit ñoo war a def lu baax. Mm. waaye ku ci bokk tu es libre pour def lu la neex déedéet. jullit feeg mu ngi doon jullit islam moo ko tënk. Mm-hmm. lépp islam moo ko tënk. Mm-hmm. waaye su fekkee ne xamut loolu. Mm-hmm. dafay jàpp ne ñi sant Mbàkke ñoo war a baax. ñas laay si. du noonu. donc ci biir loolu man nekkuma xaadi du may àtte kenn ci lislaam du mufti masala lislaam yi du maa koy tekki du ma imaam ci benn jàkka wala juma euh, du ma noddukat du ma ustaas mais teraanga Sénégal tam dafay may ñu ngi koy wax sax ci problème mu ñaari Baay Faal waa ji ñëw ñu am problème ñu séparer leen di leen entendre mm-hmm. ñu ne ko nu mu tudd ne aboo ñu ne ko rijaal mm-hmm. te ànd leen juróomi at kenn xamul sa turi morom abo rijaal rek kii daf naan abo kii ne rijaal donc Sénégal da ngay romb eh sëñ bi sëñ bi mm-hmm. soxna si mm-hmm. ajaratu mm-hmm. loolu orma la mais nag hmm, bu ñu la bëggee xas saaga la dañ lay puus ci mbir bi na la yow sëriñ nga yow kilifa nga yow nangam pour rëyal ko mën laa cabaxal laaj bi ñu la war a laaj façon stratégie la pour yéen journalistes yi laaj laajte mais dëgg-dëgg ku xam lislaam nit ki bu amewut benn responsabilité ci l'islam mënut a nekk kilifa diine mais nag comme ñun dañoo réer ba ku sant Mbàkke rek kilifa diine nga ku sant Ñas kilifa diine nga. Mm-hmm. loolu réer bu ñu ci yeggee da ngay xool benn Cheikh Ahmed rek na ko kilifa diine nga. Mm-hmm. mais doomu jullit la mm-hmm. ma judd fa ma war a juddoo ñu jàngal ma. te dafa war. yonentu mu ne ci sàkku xam-xam wareef la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. kon kenn amut lay. mën a làkk français bay rek ku xamul fara ku kuy kuy kuy yàq grammaire. te yow mënoo liir leetar bi la yàlla yónnee muy alxuraan loolu gàcce la. donc ma tànn métier commerce muy suma business. Mhm. kon business man la opérateur économique la. Mhm. su dëgg amee. Mhm. nekkuma njiitu diine. mais bu riir amee. nga dégg ma rek may wax ay neex ak ay xaddis parce que jàng na rek nga ne noo kii kilifa la. loolu yow yaa baax. loolu sa affaire la. mais man jëluma benn responsabilité ci diine ji. ne kilifa la wala imam la wala nanga waaye nag ci laa bokk. waaye su ma ci bokkee tam fu may kotte suma bopp mooy jullit yu doye di jullit yi nga xam ne ñoo gën a yées ñu baax ñi dañu bëgg ñu ñuy diri di ñu yóbbu ci yoon yooni mbaax di ñu ñaanal yàlla di ñu dimbale comme ñoom baax neen buñ ñu xas neen ñu dimbale rek yërëm ñu xam ne ci seen mbaax gi ñoom mën neen ñoo baaxal waaye ku bon ni ñun jéemoo baax ni ñuy jéem a baaxee taxaw di ñu xas dañu xam ne bu kaar bi duggee dañ la fay romb bàyyi la mais soo amul sansa duñ la wéef duñ la bàyyi bàyyi kon man duma kilifa diine ci textu lislaam mënuma koo nekk. Mm-hmm. mais ci aada senegal mm-hmm. ku sol xaftaan sol yére kilifa nga. Mm-hmm. parce que xamuñ xam-xam ak yére. moo tax Cheikh Omar Foutiyou Tall ñëw na romb ay nit nuyoo fayuñ ko. mu dem sol ay yére kaalaw romb ñu jox ko soos mu simmi kaala gi so dóor ko ci biir soos bi. ne yow leen teral waaye du man. ndax ba ma leen rombee nuyu leen ci lislaam fayuñ ma bi ma ñëwee taxaw ngir mbubb bi. ñu teral ma. arnaak boobu moo dem ba sëriñ. Euh, day sol lu rafet ubbi mm-hmm. dara sol mbaxana mm-hmm. di diw di sangoo saabu ngir leer mm-hmm. ñu ne sëriñ bi dafa leer waaye xamuñ na leeri xol bët bii mënu koo gis su doon loolu Moustapha Guèye leerul bu doon loolu am na sahaba yu bëri leeruñ ndax dañoo ñuuloon bay biriyee donc ñàkk a xam diine tey woote woo diine moo ñu lor mais man mënuma nekk kilifa diine parce que bugguma ko doonuma ko nekkoo tamit koo xamante ni da ngay faj waa damay faj ci sumay garab mu ngi mel ni tey pharmacien bi the pharmacist moom laboratoire mooy defar garab. Mm-hmm. mu jàngi ut licence. Mm-hmm. ñëw di jaay. Mm-hmm. moom amul benn responsabilité ci garab bi. man damay wër àddina. at yi ma am. dem naa ko ci réew. ci réew yu souverain ñu am indépendance. di wër ay garab ba dajeeg yu baax yi baax yi ma sélectionné yi gën. ñëw di ko jaay. comme yan lu ci mel ni àndalaa buri. àndalaa buri dama koy jaay moom garabu ndox la boo xam ne. li muy def ci yaram kenn xamu ko mais Sénégal gii man niñ ma contré mm-hmm. lu nañu waxal ma mm-hmm. golo gu jóg ci man ngay jàngee yéeg te mu neex ma nag mm-hmm. parce que ma su ma doon jaay lu bon nga dégg ko mais kenn musta am audacité taxaw ne baaxul ka ko defoon jigu ko dafa dem ci ndooy baan na ko garabam yi nangam nangam ndooy baan woo ma ma ne ko xamoo ma xaw ma la mais góor nga dama lay may nga essayé su baaxul nga ne baaxul ndooy baan noddu ko ci rajo bi ci la sëriñ ci yëpp noppi parce que Sénégal arnaque bi ni mu fi demee ku indi dëgg rek. Mm-hmm. yow menace ngay doon. Mm-hmm. man suma garab yi dafa am garantie. Mm-hmm. boo jëndee baaxul. dellool xaalis bi 2019 ba tey nit musul delloo. mais comme yenn genre garab la yan effet lay def ci nit. dafay dafay dafay indi ñett xam nga am am na koo xam ne du gaaw a koddal. am na koo xam ne su koddalee du dëgër am na koo xam ne dafay koddal mu dëgër mais day gaaw a daanu. bii nag ñett yëpp lay faj. mais du ci yem dafay faj hémorroïde bu bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti. du ci yem mais day faj coono ak fatiguement parce que kattanu góor yi mu boole moo bari. boo stressé sa kattan dem mën nga koddal ba tiim sa jabar ñu tàggee la wala sa jabar tontu la benn kàddu rek mu reesaat. Mhm. parce que góor góor rek la mën a doon. Mhm. te góor mun nga koo may añ du lekk mais kàddu boo ko ko joxee mu saf ko. Mhm. donc garab bi loolu yëpp lay faj wala nga toog sax di wirda wala occuper say liggéey ba taloo sëy boo ko naanee dalay jox appétit sëy mhm. moom vingt cinq mille lay jar mais dafa jéggi dayoo mhm. ni mu mel moom kenn mosu koo gis d'accord am naa beneen bu tudd dooy waar sunguf la doy waar boobu euh, dix mille lay jar mhm. da koy naan mu raxas sa deret raxas sa biir boobu laa tuddee junnee puus maanaam dugal génn du mm-hmm. du ñaar de benn la. Mm-hmm. dugal génnee dugal génnee ñaar ba muy junne yoon da nga koy def ci garab ki boo ko naanee. Mm-hmm. donc la wax naa ko kenn ñu ne ma xanaa da a rey nit ñi loolu bariwul ma ne leen da ngeen di dem ba fajar da ngay bàyyi sa jabar den dem def délégation ñenn ci saaba na ko dafa tuuti. nga mun a imaginer ñu may la guddi nga ne dafa tuuti kon ñu ñoo ñu gënoon a wér. parce que lekk yi dafa naturel woon dañuy lekk tàndarma lekk rey gàtt léegi dugal ci safara si amul jumbo yi. amul yu bon yi. you know naturellement. dañu dëgëroon am kàttan den daan bëgg di sëy am na yenn ci saabay den daan sëy seize fois chaque jour. Mhm. ñi den daan sëy ba seen jabar bu demee àll ba sax dañuy mballu ci la yonentu aaya mballu. Mhm. donc garab yi loolu lay def man dama ko booleek xam-xam mais ànd ak ay ay ay western education muy jaar ci ay laboratoire suma garab dama koy siil paqueté ko. Mhm. mu am scanner. am naa bu tudd regu. boobu dafay réyal guddal lan lay réyal mooy kooy. dafay réyal kooy am na koy dëng daf koy jubbanti. Mhm. am na yu tuuti daf koy rëyal am na yu gàtt daf koy guddal. parce que mhm. koy dafa war a jub. Mhm. te ma wax la benn affaire lislaam bi ñu nekk koy da cee am solo. ndax bokk na ci si bokk na ci critères yu ñuy tànnee yu ñuy tànnee imam koy da ciy bokk. boo nekkee tuña mu gàtt dañoo sib sa jiite mën nga jiite nag. mais dañ koo sib. bu ñëpp taxawee ki gën a guddule mooy mooy mooy nekk imam bu fekkee da nga yoom mënoo sëy. kon yooyu yëpp yooyu yëpp dañ koy génnee ci imam. da waaw maanaam pour wan la ne ñun. ñoo mhm. xamul diine rek da ngay wax koy ñu naan dafa àll dafa yàqu mais mhm. l'islam dafa compter koy ci ci àtteem. Mhm. l'islam bàyyiwul koy ginnaaw. tey man bu ma takkoon jabar mayoom l'islam tas na sëy bi du xool dama baax dama bëri yërmande. dama jub dama mën a julli damay naafi la non l'islam tas na ko. comme jaamu yàlla la woon. demal ci armeel yi di raxas. di bale del puus del dimbali nit ñi yëpp jaamu yàlla la. mais ndaw si moom. koy bu dëgër dafa bokk ci lislaam mhm. diine ji ñu nekk mhm. moom li xaalis ak koy mhm. ci lislaam la bokk moo tax man ma bëgg ko parce que tey boo amut xaalis mënoo tabax juma màkk gi ñu nekk tey gëm yàlla taxut la faa dem xaalisa la fay tax a dem benn nga mën ko wala ñu mënal la ko asaka ku amut alal mënoo ko génne donc kon bu ñu fi nekk di jéem a naa fekk ak nangam ak rafetal non suñu aada Sénégal lii du Sénégal l'islam la waxuma Sénégal. Mhm. waxuma aaday Sénégal. Mhm. waxuma seen gëm-gëm loolu seen affaire la l'islam bu leer. Mhm. bi yàlla jox yonantu. koy da cee am cër. da cee bokk. d'accord mais tey lan moo tax nga ñëw nga ñëw nga ñëw Sénégal imposé wu imposé wu ci gros mots yi ngay wax te ñun Sénégal baaxoowuñ loolu. lan moo lan moo waral loolu ak wax yi ngay wax ni naka nga koy dundee ak sa njaboot aussi tamit ak say soxna comme da ngay taxaw naan damay nàmp ci xale yi naka nga koy dundee ak say soxna. non xam nga Sénégal gros yàgg na fi xam nga xaxar. xaxar waaw. gros mot rek moo fay am. Mm-hmm. mais li ñu tuddee gros man pour man mooy fen. Mm-hmm. fen mooy gros mot. Mm-hmm. jëw mooy gros mot. rambaaj mooy gros mot mais dëgg. mënul nekk gros te man dama bëgg nga xam ne. man jaayuma garabu bëñ mhm. jaayuma mat laa mhm. ah mhm. sëriñ si defar nen nit ñi yar nen bind nen téere man garabu kooy laay jaay mu dëngee ma jubbanti mu tuuti ma rëyal mu gàtt ma guddal nga nooy la ma dëgëral kër gi mun a neex donc loolu ci société lañu la la bokk gis nga bi ñu ko minimiser ñaata jabaru nit ngay gis ñuy njaalo am na ñoo xam ne lekk taxul ñu njaalo mais dañuy bëgg ku leen okkal seen bagage yi mun a nekk. Mhm. yow da ngay ñëw rek bu ñu ne salaamaaleykum nga ne frip bépp. Mhm. mu am benn Cheikh Ahmed bu bon bu nekk ci koñ bi fu mu tourné mu xooy ko. Mhm. di ko may xaalis. mais bu fekkoon ne ku takk jabar mën koo satisfaire ci kaw lal bi boo xëyee liggéey am loo ko jox. njaaloo wàññeeku ci réew mi. gel boo fi gis daanaka am na far bu mu nopp. am na ku koy jox xaalis mais am na koo xam ne bu bëggee tàngal yaramam ci moom la jëm. donc lii lépp lu am la. man nag soo gisee ma ñëw Sénégal imposé wu du dara. Mhm. ëpp ma nit ñi xam-xam de. Mhm. <laughs> lu ma jàng nit ñi jàng ne lu ko raw mais damaa dëggu. Mhm. di wax li ma santé nit ñi di ma yëg. xam ne kii fenul. en fait gis neen fi phénomène yu fenkat bu nekk. xam-xam late na soo tàppee YouTube loo bëgg a xam ci diine firi neen lax dari osma yu firi neen burda lu ne firi neen ko. sëriñ saa ngi waxtaan ah ustaas ñu ngi wax a wax léegi nit ñi lu ñu bëgg mooy ku naturel. man nag li may yëg laay wax li may wax laay yëg du ma mais nan nga koy dundee ak say soxna comme yi ngay wax damay nàmp ci xale yeeg yooyu. non loolu moom façon jàngale la. mais nit ñi bëgguñu comprend moon ñaari niveau laa ko waxee. en fait damay nàmp wax naa ko ma ne bu fekkoon ne dëgg-dëgg dama ko gëm. kon faasiq la. faasiq mooy ku def bàkkaar ba pare di ko wax. kooku den ko war a rey. kon man lislaam rey na beneen bi fasiq moo gën naafeq euh, naafeq mhm. lu mu bon bon mhm. euh, euh, fasiq naafeq mhm. lu mu bon bon moo gën fasiq xéeféer lu bon bon moo gën naafeq jullit bu sàggan moo gën xéeféer kon su fekkee ne dama koy def gëm ko taxaw publiquement ne dama koy def kon man maa gën a yées Sénégal mais damay jàngale wax li xew ci dëkk bi ma bokk ci dëkk bi naa jël exemple sama bopp. Mm-hmm. mais su loolu paasee su loolu paasee man ci bàkkaarkat yi laa bokk loolu yàgg naa ko wax. Mm-hmm. mais bàkkaar du suma yooni jabar du suma yoonu yaay. Mm-hmm. parce que kooku jaam la ni man. yàlla mooy togg bàkkaar nit. tooñ sa jabar. yaag sa jabar la mais bàkkaar. noo yaag yàlla la. li ma séq yàlla mooy astaghfirullah jéggal ma mu jéggal ma. tuub damay tuubal yàlla. mais di jéggalu nit ñi. Mm-hmm. donc wax ji jàngale la. Mm-hmm. mais on vrai dire dafa am ci réew mi. Mm-hmm. dafa am dafa am mu ngi mel ni Mass Mboup dem na wal fajiri parce que moom Ousmane Sonko la. man Macky Sall la mu mer ci loolu. ñu invité ma mu nekk chroniqueur. plateau boo dem invité bi mooy buur. mu waroon ma traité ak respect. Hmm. jox ma cër en tant que invité. Hmm. loolu mooy professionnalisme. Hmm. parce que fa du organe. mais personne la ko jëlee sol na fa mbubu juste jugé ma sol mbubu imam di ma jox moral. toogut fa pour joxe moral. toogut fa pour juge na laajte. mais den la war a wax dëgg yow ku ne nga attaqué nangam nangam mu ngi doon wane sentiment am envers personne bi. que neexoo ma li ngay def neexu ma. bokkuñu gis-gis mu bugg ko fayee ko ci micro bi. Hmm. yooyu erreur la. Hmm. beneen bi tegu ci moom Mass Mboup taata tax mu siw. Hmm. parce que émission émission li ci dëkk bi moom lay def di invité caga ji ñuy waxtaan di invité mandikat yi mais kenn balaamewut ko parce que liggéeyam lay def. taata tax mu siw. te bu la woon. Ndoye Bane moom moom programme boo demee BSDA Momadou Ndoye baat moo ci nekk moom turam nekku ci donc cogg na cogg ba am place. ci émission bu bon. li ci dëkk bi ñu xam neen ko caga ji la ñuy jox micro mhm. nii laay waxale nii laay jaaye kenn kenn moom moom maas mbub boobu mhm. mu ne man lay blâmer ci ma toog ne damay namp bi ma ne ko ci nàmpkat yi nga bokk ñi jàng body language mhm. ci saa si dafa appelé euh, euh, luy nàmp euh, mënatut a wax làmmiñ bi bañ na parce que xam na ni kii jekku na ko te mënut a waat ci alquraan ne moom maas li mu njaaloog jigéen bu mu takkul ëpp na juróom yoon mënu ko waat waxuma daf ko def de ndax loolu ne yëkkati kaamil ne musuma tiim jigéen bu ma takkul ba duna tukki du ko def donc nga gis kon nit day nekk ci lu bon micro yi tàkk muy sell selllu di jouer le jeu fekk yow kabooy nga ngay jouer endo donc moom maas mbub boobu euh, sañ na bëgg Sonko mhm. mais su toogee ci micro bi en tant que journaliste mhm. non na nekk journaliste. Mhm. na nekk chroniqueur. na nekk présentateur bu wàccee nag nit la comme nit ñi am na mhm. droit bëgg ku ko neex. Mhm. am na droit faral ku ko neex. mais la fait liggéeyam taxaw na na doon professionnel. maanaam maa leen di sédd li ñu bëgg a gis. ngir di wax ci loolu man ma mën a avancer. d'accord te du yàq dëgg bi ma leen di wax. donc Sénégal. dafa bëri ñuy def. wala boog ñëppay def. mais bu micro yi tàkkee. Mhm. ñu doon naa fekk moo tax wax jëriñatul dara. Mhm. li ñuy wax ci internet ak télé. Mhm. bu wax yi doon jëriñ mbon ngi wàññeeku. mais télé nit ñi gën a bon. d'accord télé nit ñi gën a yées. parce que kii wax dafa bon. lu muy wax du dëgg te waxi naa fekk du dugg ci xol. d'accord yaa ngi wax ci audio yooyu noonu mu mel ni am na loo xam ne sax actualité la muy jamono jii di ojo di audio Cheikh Bara euh, bi nga seetaanee loolu ndax nga ko jàngatee. waaw man li ma ci jàngat mooy. dama ko faram fàcce parce que nit waruloo añaan Cheikh Bara Ndiaye bii def def gis xam-xam moom gaa xam-xamam bariwul ñun ñu am xam-xam xam neen ko xam-xamam bariwul ci fiq xam-xamam bariwul ci alquran mais nag yàlla xoolut xam-xam dafay may nit lu ko neex yàlla may na Cheikh baara macha allah yàlla bu ko cet jàpp ci métier mi mu nekk dem na ba gis bunt bi jongoma bu mu bëgg mën na laa takk tey kër gu mu bëgg mën na faa fanaanta moo ko moom mu ngi faj soxlaam di faj soxlaay nit ñi mais loolu foog nga saluer ko foog nga reconnaître que kii dafa puus ci barke yaayam ak baayam ak ndimbalu yàlla yàlla dimbale na ko ba tey xam neen ko dootu dégg Baara Ndiaye Cheikh Baara Ndiaye lay dégg wala Serigne Baara Ndiaye loolu ihtiraam la teraanga la tudd kañ ko tuddee mën na tudd cheikh. Mhm. mais dem na ba nekk ci daraja nit ñi léegi Serigne Bara Ndiaye wala Cheikh Bara Ndiaye. Mhm. def gis yàlla ko mën dem na bañ koy askanale la loolu mérite la maa ngi mhm. saluer loolu. mais euh, Cheikh Bara Ndiaye bi doon wax ci audio yi. Euh, audio mi dafa leer. parce que dafa wax ne maa ñëppay sóob. ba ci Ousmane Sonko day sóob. mu ne yërëm naa ko jàpput ne nit ñi dañuy sóob te sóoboo. ça veut dire moom day sóob. wax na kenn na ko seetaan ma sëriñ danaa layal sonko. Mm-hmm. kon moom nekkul di waxal askan wi na leer. Mm-hmm. sonko lay layal ak ñi bëgg sonko. Mm-hmm. en fait mooy lim maas waxoon Sénégal danga yeb sénégalais mais ban sénégalais. am na sénégalais yoo xam ne man la ñuy xëy di ma wër suba ba guddi. lan laa wax lan laa def dañ ciy reetaan dañ ciy jàng mais dañ ciy bëggee dañ ciy gis seen bopp. waxul ñooñu. mais ñim bokkal sonko laa yeb. Mhm. mais layal boobu noonu est-ce nekkul genre day wax comme da koy comme da koy da koy défendre mais lay boobu noonu yow da ko jàppee comme genre inventé. non non plaider ak défendre français la lay wolof la. Mhm. lay moom lu leer la nañ. Mhm. wolof mu ne lay bu jubut terewul jub la. moom daf ne ni ma wóoree ne Sonko ak moo yóbbu jëmmi boppam ba muy dem. dàmp lu yóbbuwut ko dara jotu ko. mu ne wóor na ko moom Bara Ndiaye. Sonko mu ne dafa feebar donc entre ñoom ñaar am na ko fen mhm. wax yi dafa wute. Mhm. léegi moom Baara Ndiaye wóor na ko ne Sonko dàmp lu jiwut mhm. dafa dem pour ñamante. pour ñu bësal ko Baara Ndiaye d'après ni mu waxee. léegi mu ne dina ko layal mooy li muy def rek ñëw ci askan wi setal Sonko. maanaam lay euh, baatu olof bu leer la. mooy nit ki def dara nga lay ba mu jub ne moo ko def. wala nit ki def dara nga lay ne jubut. defu ko wala nit ki ñàkk a def dara nga layal ko ne nangamate mu ngi mel ni tey ma am dëj. nga ne ah Ibou de jaalewut la ah Ibou de dafa feebaroon layal nga ko pour rafetal mais lay la comprendre nga on veut dire fen nga mais da nga bëgg jàmm entre man ak Ibou wan ma ne lim la jaalewut dafa feebar te feebar feebarul donc xam na ne Sonko dàmpalu jiwul d'après ni mu waxee ça veut dire que Sonko daanu la bëggoon ci waxu Bara Ndiaye laa nekk ba tey. Mhm. léegi nag bu ñëwee ci askan daf koy layal. Mhm. ne dafa feebar dafa nangam complot la Mamour Diallo nangam nangam mbiri Adji Sarr lu ma ci xam. Mhm. laykat bu mag la. loolu xel a koy def ak pexe. sëñ Bara am na xel am na pexe xam na ko. wala boog ma niveau yeggul foofu. xam nga xam-xam niveau la. man suy ma koy déggee ay reetaan moo may jàpp. parce que maîtriser wul lu muy wax. den koy yoota mu taal micro bi wax. mais am na xel. ñun Saalum dafa am nu ñu daan tooñee Bawol. su bool bool waxaan ba pare dañuy okkante naan ah bawol la jógee de. Mm-hmm. maanaam ñun dañu reconnaître que yàlla miy maye. Mm-hmm. macha allah dafa may waa bawol xel. Mm-hmm. mais est jàppoon tamit loolu noonu ay ay audio mënuñu changer ay voix genre yooyu. waaw loolu mën na nekk mais yow mi nekk ci technologie. di nga xam lu ñu changé. li am mooy ay ojo yu wutale ñu jokkale ko. mais changé amu ci inventé amu ci. mais moom li mu wax mooy layal na Sonko benn ñaareel ba mu saaga gambien moom Bara Ndiaye te Gambie dañ koo bëgg dañ koo déglu. Mm-hmm. mu ne mboolem président àdduna Adama Barrow bi yàlla jox Gambie moo gën a nilaar. Mm-hmm. pour man war na jéggalu waa Gambie ci wax jooju parce que daf leen doon jëw. Mm-hmm. dafa saaga seen njiitu réew. mu teg ci ne Sonko kook rek la tane. mu tegaat ci ne sénégalais ya tooñ Sonko teg ko fu mu yeggu te man loolu yàgg naa ko wax sëñ Bara fenut de. maanaam li muy wax ci télé bi business man la. mu ngi mel ni Ousmane Tounkara la man mii business man la damay toog wax lu ma arrangé. jàdd nii am loo ñam ñun ñëpp ci leen nekk. Mhm. comprendre nga. Mhm. man génnoo ma génnoo ma ci sama ñun ñëpp a mais moo tax mu ne yërëm naa. Mhm. ku gëm ne gars yi soobuñ ba sooboo. baara leer la wax. Ousmane Tunkara Pape Alé Niang Cheikh Ahmed Cissé Ba Jaxate Mati Toura Pom. fa Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ba Baara Ndiaye Saa Ndiogou ñun ñëpp ci suñ bopp leen nekk. lu ñu arrangé la ñuy wax lu ñu arrangé duñ ko wax. kenn jubu fi kenn dëgguwu fi. tu vois moom loolu la wax. Mhm. nga gis ne tey saaga na Gambien mhm. mais mu ne ñun ñoo tooñ Ousmane Sonko ma ne wax na dëgg parce que man yàgg naa wax ne Ousmane Sonko du solution amul solution. Mhm. Baara Ndiaye loolu la dëggal. ne xamul dara. benn pale la taxaw Macky Sall la tax te fay dem dafa mel ni daf ko jomb li gën a foor la sañ. maanaam dafa dafa dafa fesete Ousmane Sonko wan kan mooy sonk léegi nag ñu am problème. Baara Ndiaye ginnaaw bi mu waxee ñaari wax mu wute li muy wax ci kaw li ci suuf. Mm-hmm. bu génnaatee ban lay dëggal. Mm-hmm. ñun léegi fa leen koy xaar. Mm-hmm. ñun waxkat yëpp ñu ngi toog di ko observer. sooy def naturel ak doo weeru. soo seetaanee suma benn programme. am na ku ñuy wax naaru ci TikTok bi laa ko xamoon mu ngi ci DJ Yves. Euh, ma gisa déggante ak moom TikTok dem ci moom mu toog rek na ma yónnee ma xaalis ma ne ko non aw ma ma may ko benn cinquante ma ne ko aw ma xaalis quoi. Mm-hmm. ne ma non danga may teral de. Mm-hmm. sinon maa ngi ak ma ne ko laa yàq nga ko xarit. Mm-hmm. wax ma ko dara dama toog en direct rek wax ko. moom moo mujjee di rey boppam di ma porter plainte pour ma génnee vidéo yi. pour wan la ne boo làqatoo rek ngay weeru. mais boo làqatuwut. di jaar ci njàll wi. nit ñi xam ne ah Cheikh Ahmed mi lekkati xorom la juum na. ah sëñ bi da daanu quoi. amul problème man maa doon jàngi bi ma doon jàngi korte dem naa ci benn sëriñ. Mhm. mu doon ma jàngal korte sëriñ bi nax ma yónni ma benn service pour ma gaaw a dem. Mhm. ndekete jaaykate bisaab bi la sëriñ bi bëgg a dóor. Mhm. man daal am na lu ma fàtte may dellu dégg yuuxu yi ak tàppante yi. ma taxaw rek mu pare ma ne ko sëñ bi jox ma. lii ma dem. Mhm. mu rus am kersa. Mhm. mais faalewu ma ko sëriñ bi nit la. Mhm. daf doon daanu yuuxu yi mu doon yuuxu taywu ko mais man daf ma teg dil. yónni ma fu sori balaa maa dem mu ñëw su xoddam teguwaat. <laughs> dëgg mais daanu na te moo ma jàngal korta. jàngal ma yeneen xam-xam parce nit ki mel ak li yàlla def ci moom du benn. daanu bi c'est humain. nit la. malayka yi bi ñuy sikkal nit ñi yàlla daf leen jox bànneexu mbëggeel. deux heures de temps leen def ci suuf def musiba. képp ku jongama bu rafet jox sa bopp nga bañ nit àjjana nga xam na ne caaxaan mënu ko mhm. kon tey parce que fu sullu jógee rek xel wàcc mhm. sullu bi jóg nga contrôler sa xel ne dama ragal yàlla laalu ma mhm. noonu nit nit ku baax a ko man moo tax wala qad hammat bihi wa hamma biha moo jox yusufa darajaam mais man na batuuma man man lépp lu may def soo fi nekkoon gis nga nii munoon naa wax ne maa ngi jël interview sañ see xoddam teku nii non non non naturellement ni nga ma nëbbatuwuma aw ma lu may làq. Mhm. moo tax su may wax. Mhm. audio laa lay dóor pour saa yoo paree teg ko nga teg ko aw ma lu may làq. Mhm. donc Baara Ndiaye. te ban message nga koy lancer aussi. no na na na continuer dóor yi rek dóor yaa ngi dox. xam nga nga dóor ba am jongoma bu nice am say kër. bu mu bàyyi critique mënul ñàkk. daanu na na faxasu jug dem. waaw yonantu sa juum na. waaw nit ñi laaj nañ ko mu ne suba naa tontu foog ne moom ma mbir yàlla na ko ah foog nga régler nag yem sa place jaam nga. Mm-hmm. sopp naa la yaay Habibullahi yaay Nurullahi yaay Safiyullahi yaay lépp. Mm-hmm. mais maay buur bi. Mm-hmm. moo tax bu suru ne. ila zaatihi ma chita min sharafin waaye wansub ila xadrihi ma chita min azamin daama daatu nasara fi nabihimu donc tey euh, Bara Ndiaye nag xam ne dafa daanu lam doon wax te muy dëgg ci moom ci suuf moo weeru na ko defaraat booy Pastef fi dañoo man bis de. Mhm. mën seen nit. Mhm. benn benn waaye ñëw na sama commentaire na ma baara moo tey. Mhm. on on tem baara ak sonko xam nu mu ko waxee maanaam daal bëgg neen baara ak sonko. booy Pastef fi dañu mën bis. ñoom yi neen mën nañu am problème mais kenn du ci dugg. waa xeexi njaagoog soose la ñuy xeex. donc am na ñu ko couvrir. temps d'antenne bi mu jënd euh, Walfadjri. su dee may man. damay waxtaan ak Sanjog bu ma ci laaj bu ma ci wax. Hmm. mu daw interview rek bu yàggee rek ñu fàtte ko. Ah, ko jënd foofu. daf ko dafa jënd temps d'antenne. Hmm. moom ko di ci def numéro di wax lu ko saf. Hmm. tey bu ko Ousmane Tounkara woowee jox ko information jox ko mu dajale moog Sanjog ñu waxtaan saa di ko laaj muy tontu. saa di xaqataay di ree. di ko jàppale di ko gonfale quoi. dafa jënd temps d'antenne mais man ni ma ñemee toog rek journaliste yi ñëw tiim la. gars yi ñemewuñ loolu. ñemewuñ ko. Mhm. man su ma dee Baara Ndiaye en in terms of communication li ma koy digal. Mhm. du ma ci wax duñ ma laaj. Mhm. ma daw interview ne dem ci tegtal ak nangam ñi nga xam ne yaa leen di laaj lu wax lu leen neex. su ko nit ñi coowee benn weer ak fàtte ko senegal dara day xew Californie xewiwut. non xewul des na. des na. léegi mu xewi. Baara Ndiaye xew. keneen ay xewal rek. donc su dee man. dama ci aju du ma ci wax. daw plateau yi. d'accord parce que image am bu yàqoo rek am na problème. te baaram miin na million léegi de gisoo bakkan mi ni mu mel ak lexe. <laughs>